asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 26 novembre 2019 ñu yoogi ci yéegle kaay yi yéegle kaay gii di sunu lamb moom la ñuy njëkkee sunu lamb kat dafa ñëw ñëw ak ñun ci nga xam ne moom mooy tafatin tafatin nag mooy géant bawol boobu géant bawol bi day moom daal nee nañu ak lu mënti xew mu ngi entraîné nekk au top waaye daal benn combat daal amagu ko ba ki nga xam ne moom mooy mbooy kayre di ci wax ne situation tafatin daal doon na loo xam ne war nañ cee taxaw seetaat ndax Tapha daal moom mooy paradoxe bi waaye loo ci mën mënti dégg yokkukaay yi li nga xam ne moom mooy cachet yi maanaam le flambée des cachets dafa mel ni dawloo na ay promoteurs yoo xam ne dañoo laal rek wàññeekuwaat ku mel ni Matar Diop mu nga ca Pape Thialis Faye mu nga ca waaye itam Tafa mu nga ca dafa mel ni daal cachet yu mag yi ñoo leen daaneel waaye ki nga xam ne moom moo di Mama Lamine ak Jokkal li nga xam ne moom mooy yëglikaay bi ñëw na ci ñun ne Mama Lamine ak Jokal kat ñoom ñaar kenn ku ne da nga bëgg a corriger sa moroom maanaam daal ñu ngay xuppante te dara xewagul suñu làmb ñëw ba léegi ci Malick Niang Malick Niang kat toog na juróomi at yoo xam ne moom bëriwu ko Malick Niang boo xoolee écurie Yoff mi nga xam ne def na fukki combat ci at mi passé am ci juróom-ñetti victoire Malick ñaa daal suñu làmb nee na war naa mën a appuyer ci loolu waanam euh, àndaloo ak loolu rek mën a Euh, sauver li nga xam ne moom mooy déclin bi waaye nag ki nga xam ne moo di Abdou Bakhoum wax na de Abdou mooy ki nga xam ne moom mooy ménager bu Ama Baldé nee na Ama Baldé yàgg naa pare yàgg naa pare ñeenti at ci ginnaaw pour mën a bëri ak ki nga xam ne mooy Modou Xarañ Lo waaye nag la ñuy mujjee ci sunu làmb mooy Alaaji Mbay ak Big Bato kat ki nga xam ne moom mooy Jax Wrestling Production taxawal na ko muy promoteur des grands événements de la lutte simple Jax daal kon nee na dina ñam ci li nga xam ne moom mooy lutte avec frappe bi ñu ñëw ci record record yégle kay ne général Malika Pakala Ngel John Ibou Ndiaye ñoom ñëpp daal dafa mel ni ki nga xam ne moom moo di Serigne Ndiaye de def lee naa suul Serigne Ndiaye kat dafa ñëw ci saison bi ñëw ak doole jël li nga xam ne moom moo di 3 millions 600 mille ci ñetti gala ñetti gala yëpp mu waabale ko jël ko doon ki nga xam ne moom mooy vainqueur bi waaye nag fii di nga xam ne moom moo di leewtoo point net beneen xaar kanam daal làmb amati na ko maanaam promoteur yi dañoo am beneen association bu bokkul ak bi nga xam ne moom la Pape Abdou Fall jiite muy ban association xanaa collectif des promoteurs de lutte authentique démb lañ leen dalal kii di docteur Alioune Sarr moo doon dajeek ñun ñoom waaye nag ñoom ñooñu mooy ñoom Bamba fay ñoom Abdoulaat Ndiaye ñoom Jey production te yaakaar nañ sax de Bamba Faye moomee moo leen war a jiite comme président waaye kii di Abdoulaat Ndiaye nag dañ ñëwaat ci moom ndax moom moomee di Abdoulaat Ndiaye di manager moom kat jënd na licence su promoteur am kon moom daal yematul ci li nga xam ne moom moo di management kon mbokki Leewtoo yéen a ngi noonu lii lañ leen indi woon ci yéenekaay bi tey di mardi 26 novembre 2019 jërë ngeen jëf ku waa Leewtoo TV nu leen di nuyu leen gërëm leen sant Birame ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Birame maa lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay Ndeye Comba di la nuyu baax di la delloo ziar bi di nuyu mbokki internet yi ñuy suivre ci Leewtoo TV waaye tam di nuyu équipe Leewtoo bi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm Ami Biram ñu ñëw nag ak ci nga xam ni mooy sunu lam sunu lam moom tey dafa xëy eh, def benn taxaw jàngat ne tafaatin Tine lam moo ko war a dal parce que day añ mi ngi gagné ay combat mais paradoxalement dafa am problème adversaire am pour décrocher aussi combat. waaw loolu boo xoolee tafaatin ci dynamique bu mu nekk eh, boo xoolee fa mu jóge ci Ama Baldé rek wàññi na ko lu bëri day wàññi na ko lu bëri mooy ta Ama mi ko daan. ama soxla Modou soxla keneen ku dul Modou pour mu jot ko dafay jafe kon Tapha tam dafay xaw a sori ci moom tuuti mais loo ci mënti dégg euh, war na mën am combat jànq parce que diggam ak ñeneen ñi muy Modou Lo muy Eumeu Sène euh, ay combat jànq la wala revanche am pourquoi pas moom ak Balla gay numéro de waaye boo xoolee kenn waxul ci loolu donc vraiment doon na loo xam ne daal war nañoo ci def taxaw seetlu xool bu baax mais lan moo xew ci géant Bawol bi ndax dañ ko Ah, ndax daa am li des loo xam ne xëy na dafay am ci yeneen mbër yi te amul ci moom en tout cas jar nañ ko seetaat bu baax a baax dégg nga. Birame journal sunu lamb aussi mu ne xamal ne que li nga xam ne mooy écurie Yoff te mu gañu sunu lamb door bi nee nañu xëy na tamit déclic la pour tey jii euh, Malick Niang mi nga xam ne toog na presque cinq ans amul combat mu am combat. waaw xam nga écrime bu fekkee dafa def di combats am huit victoire presque ñaar yi rek la ci amul victoire dafay mel ni kon euh, saison bu baax la def moom écurie Yoff bu defee eh, loolu nag te moom Malick ñaam muy eh, ne ca bopp ba wala boog bokk ca ñi ñoo xam ne yoof de koy yaakaar pour mu indil ko Cheikh Roi des Arènes war naa mën a appuyer ci loolu parce que tam juróomi at yoo xam ne nga toog ko bërewoo te nit ñi di wax ci yow mooy am na lu des bu fekkonte ne dara desut ci moom yaakaar naa nit ñi dañ koy fàtte mais comme fàtte ko daal war naa mën a tegu ci li nga xam ne moom mooy bilan eh, saison ki nga xam ne moom mooy écurie ah profitoo ci daal àndaaleeg riir boobu daal ndey kumba dem euh, fexe am combat te bëre ci combat yi. Euh, journal su aussi ni ngi def benn euh, jàngat ne ñi promoteur yi nga xam ni dañoo jéemoon tëgg combat royal yëpp buñ si génnee dañoo daanu ku si mel ni que Maxtaar bu Subatel ku si mel ni ki nga xam ne mooy Pape Thialis Faye tamit même chose Tafa Diop bu si mujj muy Tafa Diop tamit ñoom ñëpp buñ tëggee combat royal daal kenn gistu leen dafa mel ni daal combat jigu leen waaw euh, ndey kumba la may waxee foofu mooy mën naa am sax combat royal bi la waaye itam boo déggee combat royal rek dégg xaalis flambée de prix cachet yi xam nga tam 100 millions 200 millions ndey kumba du du loo xam ne tam wax dëgg si yàlla 100 francs la wala 200 francs comprendre nga donc boo boo boo seetloo euh, yenn yeneen promoteurs yi fii yàgg di tëgg ku mel ni ay Luc Nicolaï ay Gaston ñoom moo du ñaa ñoom Pape Abdou Fall ñii ñoom euh, Paala Mbeng sax ñu ngi koy nuyu mais boo amee seetlu ñoom Assane Ndiaye pour ñu tëgg combat royal bariwul bariwul ñi ci soobu da ngay xool benn promoteur bu bees bu jógee fële ci làng ga xëy na def na lu mu war a def xool ba xam ne lii su ma ci duggee dama ciy génn mu yaakaar noonu la rek dugg ci te dama jàpp ne loo doonul taalibam daal pour nga doon sëriñam day xaw a jafe loo ci mënti dégg bu ñu bëggee ay combat royal ñi nga xam ne ñoom ñoo war a bëre combat royal nañu raisonnable nañu wàññi cachet yi nga xam ne ku ko tëgg ñeme ko tëggaat waaye nag bu ñu xoolee ñetti promoteur yi ko tëgg ba pare ñemeetu ñoo ñëw mu mel ni ñemeetu ñoo ñëw bokk wax dëgga si yàlla nag xel day daal di lëndëm kon na mbër yi xoolaat ñoo ndëppalaat affaire yi ñu xool nan la ñu mën a defee ba combat royal bu ko ku ko tëggati mën a continuer toog di ko tëgg dem nag fi nga xam ne mooy record record nag moom dafa def benn analyse ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye numéro de nañ daal Serigne Ndiaye numéro 2 ren daal dafa mel ni euh, saison la ndax si ñaari euh, gala de na parce que 4 millions donc nee na dafa mel dafa pousse ki nga xam ne mooy général Malika Pakala Ngel John ak ki nga xam ne mooy Ibou Ndiaye euh, Obali ku ñuy wax Obali nee na daal si si si benn weer ramassé na presque 3 millions 600 si cachet si lu simple. waaw boo xoolee ñooñu nga xam ne dafay mel ni leen a pousse ñoom général Malika muy Ngel John muy Ibou Ndiaye muy euh, Thiaka Faye euh, muy Ibou sengoor numéro 2 muy euh, Gaskel mbër yi macha allah ñoom Doudou Sané ñëpp kii dafa ñëw taxaw ren ne du mu maye dara mais nag ndey Kumba dama yaakaar ne loolu boo ko bëggee di nga def ni xale bi def mooy liggéey bëri doole indi ful ak fayda ci làmb ji parce que tam làmb ji ñooñu ñu tudd pour nga daan leen. da ngay am li ñu am yokk ci dara lim nañu nag bàyyi rëg-rëg xëy nag comme gisaguñu rëg-rëg ah daañu xaar rëg-rëg arrivé rëg-rëg ba xam nan lay def ak Serigne Ndiaye ndax da ko fi jële ndax day bàyyi Serigne Ndiaye mu toogaat est-ce que Serigne Ndiaye dana ko nangu wala déet loolu moom c'est une question mais li wóor mooy xale bi daal wax dëgg yàlla ni ñoo waxee démb mooy macha allah ñëw na daal mayewul dara ñetti gala boo ci dem dem ci final ba pare jël ko ah gàcci ngaalaama Serigne dafa mel ni daal euh, mbër judduwaat na faas Babacar euh, Birame euh, journal aussi record mi ngi xamale ki nga xam ne mooy Jax dafa mel dafa dekk laaj terrain gaal gi ndax ginnaaw bu ñu ko tëjee ñetti at ñëpp doon organiser Adrien Senghor moom daal dafa ñëw def pari de l'organisation dem jéngu gaal gi ba léegi ñëpp nga ko fay fekk si ñett ñaari galaal la fa def ñaar yëpp fees dell biram euh, Ndey Kumba loolu moom wax dëgg si yàlla daay loo xam ne moom jarul sax ñu ñu koy jeex xam nga terrain gaal gi dafa deewoon tuuti ci làmb daanu ci ko dëgg sax ñu tëgg ci làmb parce que boo naree tëgg yaa ngi xool nan ngay sécuriser nan ngay euh, defaree enceinte bi euh, foofu am na ay xeer am na lii am na laa mais loolu yëpp Jax dafa ñëw faj li nga xam ne moom mooy soxla yooyu ñëw dekkalaat terrain gaal gi ba pare nag teg fa mise yoo xam ne daanu fa am parce que gaal gi nag bu caaxaan jeexee ay cinq cent 500000 ak i 200000 bëri woon na fa bu ñu toogee nag ba ay millions la ñuy wax waxul benn million day def ñaari millions lu mu fa teg rek mat na 2 millions kon wax dëgg yàlla dañuy naan bu ñu jëloon am na ko ko wax ci benn journal ma dégg ko bu ñu jëloon terrain gaal gi sax defar ko nu mu war a nu mu waree te jox làmb ji cëram dinañ am lu ñu soxla ci làmb ji kon daal dañu naan jax fa mu wokk daal foofoo xasan na fa dellu loxoom Euh, biram na suñ jógee si record nañu dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net ni ñu ñuy xamal ne ki nga xam ni mooy euh, Abdoulaye Ndiaye ak euh, ñoom Bamba Faye ak ñoom J Production xëy nañu benn collectif collectif bi nag ni ñu ko tuddee collectif des promoteurs de lutte authentique ñoom nag soo soo seetloo mooy ñi nga xam noo géddoon association Pa Abdou Fall bi dañoo génn nag créer seen kuréelu bopp pour le moment daal defaguñu bureau mais nee ñu daal ki nga xam ne mooy Bamba fay te mu nekkoon trésorier fayee si association Pa Abdou Fall moom mooy moom mooy gérer lépp tout tout ce administratif moom moo koy gérer dana ko jox daal carte blanche pour mu gérer lépp si waaw euh, Bamba fay ñu ngi koy wax euh, comme nu mu daan gérer leneen li bu ñu wóolu ko yaakaar ne bu gérer li dina dox daal ñu ngi koy souhaiter la bienvenue euh, beneen association daal judduwaat na xam nga tàmmuñu woon di gis association des promoteurs ñu toog gis association des promoteurs mais gis beneen xëy na nag ñoo bokk jubluwaay mooy tëgg ay combat dundal làmb ji waaye loo ci mënti dégg daal yaakaar naa daal Abdoulaat Ndiaye ca fa ne Dieye production yàgg nañ ko gis ak Abdoulaat Ndiaye yàgg ko yàgg a gis Abdoulaat ak ki nga xam ne mooy Pape Abdou Fall gis daal muy jàppale sax ay kon moom pa euh, mm, Abdoulaat Ndiaye bu bokkee ci association promoteur ñu tuddee ko authentique dafay mel ni xëy na dina wuute doxalin tuuti ak bu Pape Abdou loo ci mënti dégg ñu ngi xaar différence bi feeñ mu doon njëriñu bu làmb biram si kàddu yoo la ñuy tàggoo leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mère soo sama doom Mohamed Diouf di nuyu astandine DG Baramba Chéri Khadija di nuyu samay doom Mam Diara Penda Rokhaya Bébé Fallou Moussa di nuyu Eva Eva Diallo euh, di naan ko vacances la bu neex ak sëñ bi di nuy ki nga xam ni mooy Asek ak soxnaam xuj Seck depuis Italie si ville bu ñuy wax Verocchio astandine tey moom mun naa tudd kii boobu noonu kon ville boobu nag dafa xawoon difficile dem du nuyu aussi euh, madame Nia Aïcha Faye di nuyu aussi Babacar di nuyu euh, Aïda Diouf di aussi ñi nga xam ni ñoom ñoo ñuy seetaan euh, chaque jour di nuyu ki nga xam ni mooy May Sey depuis Ouest faa sama xarit boobu noonu di ko nuy aussi. waaw <laughs> loolu lay am na solo ndey ku ma xanaa nuyu la rek vraiment ñaanal yàgg maar ah taalibi Cheikh Béthio Thioune bi ñu fàtte mukk parce que bu ñu ko gisee suñu xel dem ci Cheikh waaye ñu ngi ñaanal mbokki Baye Fall yëpp waa kër Cheikh Ibrahima Fall Lamp moo tax yow sa faaleen moom wax dëgg si yàlla dañuy kontaan lool toog ci toog ak yow waaye loo ci mën dégg ñu ngi nuyu waa Ngunjaan yëpp Pay Joor Samel Cangaay waa Mburuwaay waaye nag nuyu Alex Ka ah sama séeréer bu ñaawul boobu ah, ñoom Aliou Ndour vraiment ñoom Doudou fay bu Ngeeñeen ñoom Abdou Waxal euh, amateur yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom nguy jon vraiment Max Mbargane ñu ngi koy nuyu bu baax a baax xam nga day ñooy mag ñoo xam ne vraiment du ñu tardé dalay émission bi ñoom ngañ jaan ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen jox seen wàccuwaay waaye ñoom maa ngi nuyu bu baax maam say Cheikh Ibrahima Fall maa ngi koy nuyu ak yaayam ndaak bu ëmb ñu ngi nuyu ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ba suba incha victoire PSG sur Real